Dakar, instant. L'information en temps réel. Suivez l'actualité au Sénégal. Assalamu alaikum Bok Sénégal Assalamu alaikum Bok Alliance pour la République maa ngi nuyu parti bi yëpp ku ne si turam ak santam damay ñëwaat si yi réseaux sociaux yi surtout audio Moustapha Cissé Lo bu ngeen déglu temps ñëpp audio bi dafa yàgg dafa audio bi diggante ñaari nit la man lu ma jaaxal lu taa lu ñeneen di partager audio bu nga xam ne ñaari nit ñoo ko sekkoon bu ñu waxee ñu ne Moussa Moustapha Cissé Lo Moustapha Cissé Lo Moustapha Cissé Lo loolu ça n'engage que Moustapha Cissé Lo ak ko ku mu doon waxal mais yéen ndaw parti bi nag yéen ndaw yu nga xam xamoo leen fu ngeen teg tànk yéen ndaw yu ngeen xam na ngeen nekk ci ziir di wax ne ni ngeen dakk Cissé Cissé Lo moo leen gën crédible Zir, il faut ngeen xam ni Jir mouvement kese la ça peut être même mouvement des frustrés ngeen wax nañ dakk Cissé Lo dix personnes wala 15 personnes tekkoo leen dara amoo leen base même seen leader bi mënul mobiliser ngeen ba pare di wax nañ da arrêté leen dama bu ngeen arrêté di wax nañ dakk Cissé Lo Cissé Lo insa bu mu doon démissionné di andak Maxal, Macky Sall ana seen baay yi seen baay contribuer pour Macky Sall seen bàyyi dañu jappalé won Macky Sall instable Cissé Lo démissioné deman di gars yi neen arrêté li ñu wax bi mo si bëri rek mais Cissé Lo c'est un soldat du président de la république ndaw nak bo bëggé réussir sa aduna da nga wara xam fu nga lu ngay wax kan ngay waxal ak fu ngay wax dakk Cissé Lo bu fi amé ci parti bi ngeen xam ni nak guerre guerre guerre lañ jëm guerre lañ jëm ku Macky Sall bu non dem Touba kan mo ko bon Touba Cissé Lo la coow li fi nek rek nit nak kudul dul amul instant est-ce que est-ce que est-ce que réellement Wazir bëgg président de la république mouvement da vulgariser le programme du président de la république vous demandez qu'on limoge que est-ce que ça c'est normal est-ce que est-ce que réellement vous n'avez pas d'autres ambitions il faut il faut qu'on pose cette question j'ai peur de l'avenir votre avenir chers jeunes di ngeen war a xam fu ngeen yem billaahi wallaahi maa ngi xam ni Macky Sall ñu bëri bëgguñ ko buñ ko bëggoon duñ ko wax ne nañ dàkk Cissé Lo te man parti bi kan mooy dàkk kenn sax parti bi du propriété privée na gaa yi xam loolu de parti bi ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp wax jooju nan il faut gaa yi xam ko Cissé Lo bu defee erreur Macky mun gérer mais nekkul ay yéen di wax ni nañ tàkk Cissé Lo loolu laa bëggoon yem nag loolu laa bëggoon yem ngeen xam ni seen seen problème wala fu ngeen war a yem ak Cissé Lo n'est pas n'importe qui dans ce dans ce pays n'est pas n'importe qui dans notre parti n'est pas n'importe qui dans le continent il a fii il a eu la chance aussi d'être le président de la CEDEAO yéen yéen seen papa lan lañ di taxaw fi dàkk leen diw wax leen ni avec gars yi nañ yem nañ dal xam ne affaire bi na du seen yëf nañ xam xam leen seen place nag xam leen seen place yu tekkiwul dara ñooy toog fële di di critique di critique critique ngeen war a arrêté diggante Cissé Lo ak Farba ngum Sandu n'engage pas ça n'engage pas le parti salaamaaleykum Euh, tey vidéo bi maa ngi ci jox Moustapha Cissé Lo dernier avertissement euh, Moustapha Cissé Lo yàgg président Macky Sall a àndoon ànd bi nag waa Touba dañ ne waa Touba dañoo waxoon parti démocratie pour ñu daax la ci parti bi parce que da nga leen yàqal da ngay yàqal waa Touba comme ni nga doon yàqalee président Macky Sall ci digganteem waa Touba bañ la dàqee nga dem langaamu ginnaaw Macky Sall ba faluwaat waa Touba dàqaat la Touba parce que da saaga waa Touba kon kuy saaga waa njabootu Serigne Touba di dal ci ko waa Touba waroo bàyyi kenn mag président Macky Sall na ngorom laam am parce que bëggul ñu ne. bëggul ñu ne euh, Cissé Lo dafa àndoon ak Macky Sall campagne campagne ba Macky jël réew mi mu mag Macky ci bëgg sagal la ak dimbali la sax moo tax euh, euh, mu def la honorable député def la vice président assemblée teg ay xalaatam ak xam-xamam ba nga nekk président CBAO di la wax nag première dame dama bëgg ngeen génn ko ci seen wax yu ñàkk fayda yi parce que première dame Euh, politigul dafa yàgg def social euh, yàgg ko def royeeku ci waajuram bu jigéen euh, di def social ba yàlla dogal président de la nekk njiitu réew mi première dame am fondation Servir le Sénégal njiitu réew yi fi jaar yëpp kenn mësul xam kenn mësul leen a di seen jabar yi kenn mësul leen a gis kenn mësul leen a ràññee moom ba mu ñee nekkee jigéenu ndar nekk doom dekk kaw la mu ñew tay ci réew mi jël fondation Servir le Sénégal def ko muy fondation bo xamné askan bi moko ñor ya su ñewé ginaaw raay fi rek mu wax ak benn politicien askan bi lay wax ak direct pourtant mu wa APR dañuy mer di ko wax dara ci suuf di xult di xult politigul dañ ko genn ci affaireu ñak fayda yi fekke yow xam bay ak Farba da ngeen am ay règlement de compte da ngeen ay problème mu politique ay problème mu dil wala ay problème mu ñàkk fayda ngeen génne ko ci bis ni tey nag dama leen wax ku ci waxaati dara ba tudd premier daan man sa biir kër laa lay fekk sama oto laay dawal ba sa buntu kër xeex ak yow te dama lay duma parce que premier daan talu leen ay njabootam taluñu leen ay mbokkam ñu leen ñoom ay nit yu yiw lañ ay taalibe cheikh lañ jaamu yàlla lañu xam liggéey lañ xam wax ju rafet lañ xam wax léegi boo ngeen saagante ngeen génne ko ci moom talu leen moom politikul fondation la yor di dimbali askan bi direct ngeen génne ko ci lu ngeen wax tudd ko ci pour seen wax am génne leen ko ci ngeen xam dafay du ñàkk fayda yooyu ngeen nekkee nitu safara yi ngeen doon moom nekkul ci loolu dama bëgg ngeen partager vidéo bi ngeen xam loolu man Mamadou Diouf laa tudd maa ngi wax defee déclaration fii ginnaaw raay sama kër papa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 page seen page YouTube dal wa Dakar instant moom bo xolé ñoom sen tour rek day woné lool ndax chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire lo wax ci Dakar instant. Wow, c'est une première mais ni gissé Dakar instant fay prouver ne ko Dakar instant ci kanam la jëm inshallah. allah. ñu ngi koy suivre Dakar instant lan leen lay wax na gaay yi dem abonné loolu bëgg ci actualité ñew leen ci Dakar instant. sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. waaw Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew ndax bañ naa ko chaque jour bu ma xee bu ma yeewoo information yi may soxla yëpp ñoo ma koy jox muy dugg ci YouTube bi da ko xool rek. looy wax ci Dakar instant. mais jàmm. loo wax ci Dakar instant. waaye Dakar instant dafi nekkal Baye Fall yi. dafi nekkal war a siiw comme ñëpp. wax ci Dakar instant. Dakar instant yéen a ngi moom laay seetaan. boo tëddee. lay Instagram. Twitter. Imo. Dakar instant. Dakar instant à tout instant. Madame ñu ngi koy ñu koy astuce. Dakar instant Instant Dakar. Dakar Instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant. Abonnez-vous sur YouTube.